bëri pexeek tànk bu gudd ak barke xoolee kalal du tee ñu xëy la tàgge xam-xam bu rëy ci yàlla mbaa ci duniyaa du la fegal bàmmeel yaak laajteem yaam audu billahi min asheytaani irrajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa salawatullahi wa salaamuhu ala ashrafi al anbiyaai wal mursalin sayyidil awwalina wal axirin muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa ashaabihi bukuratan wa asila assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki réew mi mbokki àddina bi mbokki seetaan axiru zaman dellu siwaat nanu di àndaat ak yéen ci beneen jataay ci axiru zaman di jaajëfal ñi nga xam ne nii yépp ñoom ñooy seetaan fu nu mënti nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew tey mbokk yi li nuy waxtaanee mooy promouvoir wala promotion bi nga xam ne gis nañu autorité yi di ko defal jikko yu yàqu yi noonu la tuddee waxtaan wi li nga xam ne mooy ay contre contre autorité yi nga xam ne ñoo nekk ca kaw di ko defal aw nit wala di ko dooleel di ko dooleel di dooleel contre valeur lii lay waxtaan wi mooy yéen ñëpp gisandoo ngeen ko mooy sunu njiitu réew def nañ ci vidéo ak imam Babacar Sylla ñu ngi koy nuyu tukki gëmu tukki woon fële ca farance ñu gis mu nekk ak ab saagakatu ndey man duma wax influenceur ni ko ñenn ñi waxee influenceur ndax influenceur dangay ngay question ñan lay influencer xanaa ñi bëgg lu bon ñu mel ne moom ñu ñàkk kersa ñàkk jom ñàkk jomb-jomb wayadi xayadi ñàkk teggin ñu mel ne moom la mën a influencer waaye réewum Sénégal gii di réewum mbaax réewum jom réewum jomb-jomb ay nit ñu am valeur dëkke ko bu ñuy tudd aw nit naan ñooy ay influenceur ñuy ay saagakatu ndey dangay jaaxle ñan la ñuy ñu dul ñi ma tudd ñu mel ne ñoom xëy na nag saagakatu ndey yooyu bu ñu nekkoon di saaga ndey fa ñuy saaga ndey di saaga ñanuy saaga gisuñu président de la république affiché wak ñoom ba ne ko maa ngi topp liggéey bi di ko rafetlu baat booboo gën a yokk a tax sax ma wax ca mooy bi muy wax ak moom wan na ko ne mi ngi la mi ngi rafetlu liggéey bi mi ngi koy rafetlu ca njëlbeen ga waxoon nañ ne xëy na man nga ne ku ñàkk xam la dafa am aw nit ñu jël waa ji rek yóbbul ko njiitu réew mi xamul mooy kan waaye ci mujj gi danga naan tayeef la ndax diggante bi mënu la ñàkk moos koo xam ne bi muy wax ak yow ba nga ne ko maa ngi rafetlu liggéey bi mu digge suba ci 15 heures danaa def live ak moom def direct ak moom am interview wala entretien bu ma def ak moom ci diggante boobu noonu le réere nit kooku noonu le ak président ni muy informé woog ñi koy informé euh, xaju fa diggante boobu réere ko mënul nekk kon xam na ki mu doon nangul ko wax ak moom te loolu noonu le bu ci mujj la am na bu amoon weesu ñu bàyyi mu jàll mooy ndaw sow su nekk saagakatu ndey moom it ñëpp xam ko terme bi il faut boobu ñu koy tudd saagakatu ndey baat bi rek dafa diis waxuma jëm mu saaga ndey mais saaga katu ndey nga tudd nit nga tudd saaga katu ndey rek termo bi dafa diis desa pour wane bonaayu saaga ndaw soo xam ne nii saaga ndey la siiwee ci internet bi ak sos ak wax lu dul dëgg moom itamit même chose lañ gisoon président nekk ak moom mu jël téléphone am def live ak président def vidéo président wan ko ne ko mi ngi rafetlu liggéey bi loolu incha allahu taala ci lañu fa fas yéene waxtaan ak yeneen ak yeneen yoo xam ne nii yu ni mel la di delloo si waxtaan wi nag ci bu yàggu rek lañ ci wax bonaa yu saaga ñun biñ ci wax ñu mel ni ci président nekkal ak ka mu njëkkoon a nekkal ak ña ko jiitu woon kawoon ca États-Unis ñu delloo si ko Sénégal ak ak ñeneen ñoo xam ne duñu ñoom te nekk ci réseaux sociaux yi di saaga ñoom ñëpp lañ dajale woon def waxtaan woo xam ne nii euh, man damay seexlu sax di tudd seeni tur waa ndax jàpp naa ne bu ma tuddee seen tur rek maa ngi leen di yokkal ñu leen di war a seetaani ñooy ñan ba tax na bu yàggul def nañ ci émission di wax ci bonaayu dagg ndey yi nekk ci réseaux sociaux yi ba ñuy wax loolu xalaatuñu woon ne dana am benn saagakatum ndey bu am pouvoir bu tol ni toog ak président de la république di ko wax loo muy wax suñu xel xalaatuloon loolu moo tax bi mu amee mu sokke nu lool comme ni mu sokkee sénégalais yu bare bare bare bare bari kuy parparloo nag man nga par parparloo waaye ku dëgg ñor ak lu sàmm suñuy valeur yi nu am da nga ko ñaawlu danga ko bonlu da nga bañ tamit mu nekk luy répété wooti ndax doy na sëkk nag waaw doy na sëkk danañ ci dugg ci biir waxtaan wi ba ab saagakatu ndey affiché woo ci kanamu opposant wala mu affiché wu ci kanamu président léeg-léeg nit ne boo waxee ci président waxal ci këla affiché wu ci kanamu opposant bi ma ne ay waay yàlla ak yàlli ñaari ñaari cër yi kañ la opposant di am benn pouvoir bu toll ne bi président am nga xam ne officiellement la ñu fal président de la république mu waat ne moo jiite sénégalais yi moo leen jiite ñoom ñëpp xalif généraux ba imam ba délégué ba wàcc wàcc wàcc wàcc ba ca ñooña ñanu njaboote président moo leen jiite ñoom ñëpp kañ la benn opposant am pouvoiru jiite xalif généraux yi imaam yi délégué de quartier yi euh, bàjjanu gox yaak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen waaye léeg-léeg yooyu mooy faral di jóg te am na yoo xam ne jeu wu terme politicien la rek maanaam ci farak président bu fekkee ne erreur bu mel noonu président def na ko au lieu que mu taxaw ci erreuru président waaye gannaaw kujjee politique lañ ko tuddee ay wujju léegi day mujj ne bàyyi fi bii léegi yow bi nga waxee ci bii kon waroon ngaa wax ca bee boo waxee ci bii waroon ngaa wax ci bee lan moo tax nga wax ci bii te waxoo ci bee léeg ñeen ñenn ñi jeu yooyu la ñuy wax jeu de yooyu la ñuy def léeg te ñenn ñi ndeysaan da leen di yërëm ndax bu fekkee ku mel ne Makhtar am na ku ma gis mu toog ci benn palaatoo ne imaam saar boobu doon wax ci oto bi te doon wax euh, président bi mu demee France waaw euh, ñoom diw sàngam a ngi fi woon daan ko def te mosu cee wax te boo ko laajoon moom ñaata émission Oustaz saar lay déglu du la wax benn bu mu ciy déglu ñeme yàlla googu léeg la ñenn ñi di ñeme yàlla maanaam nañ la wax léeg nela mbir mi yow doo ci wax te moom du la déglu xam looy wax ak loo waxul mais da ngay comprendre ku far rek léeg-léeg di parfarloo yenn yi léeg ay waxam lay doon danga nga ko koy bàyyil waaye man soxlawul may justifier kenn léelée li may wax dafa am ku tax ma koy wax wala dafa am ku may défendre ak ku may làq ak làq doom ak dóor doom soxlawu ko soxlawu ko dana soxla rek ay quelque leeral léeg nga indi ko ci yenn yi te jàll waaye lu bon ku ko manti def lu bon la dana nekk nag bonatati ci am njiitu réew def ko bonatati lay doon bu boobaa ah, ba tax na ñaari yi du ñu mën a tolli mu tolloo muk garaatu président garaatu opposition opposant du ñu mënta toll tolloo doonte lu bon lu bon kese la mais boo jàngee usul boroom xam-xamu usul yi dañuy wax axafu dararay nii dañ koy jàngale ñaari lor bu amee ñuy seet ban lor a ci gën a woyof di def balance di seet ban a ci gën a woyof boobu dafay am ke affiché wu na ci kanamu opposant daan saaga ndey kii moom dafa ñëw ci kanamu président affiché wu ci moom di saaga ndey ba tey waaye yemu ca di affiché wu rek de waaye dafa loo président ne ko am waxal ci bërëb bii may saaga ndey waxee fi yow kuy tollale kay da nga waroon tollale wax naa ko keroog DTV xanaa da ngay tollale kay président ak benn président bu wees woon naan non pourtant président Ablaye Wade de wala Abdou Diouf wala Senghor am na ko si woon ci wax lu bon mais président keroog bi mu demee wax naa kooku loolu kay nga war a comparer waaye président mii di wax ci réseau saagakatu ndey bii looloo grave ci mbir mi te bu du ñàkk bu ñu duggee ci biir dana am yeneen yuñ ci indi mais li grave mooy président war a wax ci actualité réew mi solo si nga xam ne nii am na ko mu war cee wax question yu bari ñu war ko cee tontu. mais ana RTS di tele boo xam ne nii télé réew mi la pourquoi am journaliste RTS bu topp président bi muy dem France ana page officielle bu président de la république ci Facebook ana page officielle bu président de la république ci Twitter pourquoi mu ànd ak benn benn kenn ci ñiy gérer page yooyu noonu la téléphone du ko të connexion du ko të ni ko saagakatu ndey bi amee la ko kooka di gérer page su président mën a amee kay gérer page su président mën a ànd ak président wax ak moom fu mu bëgg a waxee ak yi mu jaare foofu wax mu nekk lu officiel wax waxu kilifa jaare ci réseau kilifa waaye kilifa guy wax akum réewam président buy wax akub réewam dem toog akub saagakatu ndey ne ko ci yow laay jaar pour wax ak sama réew moom laa misaale keroog ci potu sambur boo xam ne nii jël nga soow sotti ko ca loolu mooy misaal mi gën a jege maanaam lii soow la suukar nañ ko ba mu saf sedd na waaye nga jël potu sàmbur xelli ko ci nit ñi ne naan leen ko man de duma ko naan doy na seexlu naa ko moo tax lañ naan président wax na ko fa ak ci mbirum ngóor jigéen partagé wu ma ci tous laa ci partagé wul ndax soow muñ sotti bu boobaa la ci potu sàmbur amatul njëriñ question yu am solo yoo xam ne nii question sociétale la question àdduna bi fi mu toll nga mën a wax loolu nekk lu am njëriñ journal yi xëy def ko à la une revue de presse kadi revue de presse ko télé yi def ci débat ñu def ko ci journaux télé yeeg rajo yi yooyu yëpp lan moo tax mënul am mooy fa nga jaarale sa kàddu la nit ñi séexlu ba kàddu ga sax ñu bari tasaare wunu ko loolu mooy wane rek xeebug jëf ji xeebug jëf ji loolu nag mooy defal promotion contre valeur dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ba tax na loolu incha allah danañ ci dikk léegi indi nag euh, ay texte ci nit ki ni mu war a sàmmee kàddoom ba mottandiku wax yu bon yooyu di génnee ci làmmiñam làmmiñ dañ ko war a sàmm ba la cay génnee nekk lu yiw incha allah loolu danañ ci dikk ak lu jëm ci wàllu jikko ba tey rek ñu ko war a sàmmi mm, waaye laataa loolu ñu ñëw rek ci ñamale ci ñaari yëf benn bi mooy mbirum sëñ Xasan Mbàkke Xelkom boobu journal yi yeewoo fan yi fii may waxeek yéen émission bi dañ koy enregistré xëy na buy jàll dana fekk ñu àtte leen ba noppi ndax jot nañu xibaar na ci alxames ji lañ leen di àtte lama ci waxoon ca DTV wax ko fële ca Seneweb ci émission dayre bi moom lay waxaat fii rek ci axiru zaman mooy lu ku ko manti def ak foo manti bokk tuddul lu dul lu bon ku ko manti def ak foo manti bokk la ñuy teg kay def lu mel noonu loolu lañ la war a teg war a sax ma ne ma teg ci mu war a wala mu war a gën a métti wala mu war a gën a métti ndax ku ñu séenoowul def lu bon ba noppi ngay def lu bon dañoo war a teg kooku lu gën a métti ba bu ëllëgee ku ñuy séenoo mbaax mbaax rek lañ war a gis nga koy def ma ne woon nag waxagum lañ ci am waxagum waaye amuñ ci luñ ci confirmé gum ne lañ koy toppee lu am la li ko waral mooy dañoo déggagum ay mbokkam ba laataa may def émission bi nii defaat nañ conférence de presse ma dégg ñu ko jege ñu giseek moom fa mu nekk fañ ko téye ndax biñ ko téyeeg léegi def na ay fan mën naa ne àjjuma la ba fii ma taxaw di wax ak yéen daf leen a xamal ne biñ koy enquête woo ko ca police wala gendarmerie fañ ko doon enquêter dañ ko doon dóor dañ ko torturer mook ña mu àndal waxloo ko loo xam ne nii loolu mooy li nga xam ne moom la presse bi di wax waaye loolu amul ma ne loolu nag ca kanam lay leer su fekkee amul dañ ko torturer waxloo ko gannaaw dóor ya moo tax mu wax ay avocat am danañ ko leeral atte réew mi tamit dana ko leeral su fekkee lu am la ma lu fekkee lu am la nag wax ji mënula changer bu boobaa mooy amul ma sàmba amul ma demba amul ku bokk fii ak ku bokk fee amul ku sant nii ak ku sant ne ñépp war a yem ci kanamu yoon loolu lanu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jàngal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amee ndaw su sàcc nekk borom daraja ñu yebal Zayd ngir mu ñëw ci moom wala Usaama tum nu Zayd ngir mu ñëw ci moom ngir def intervention ngir ne waa ji <clears throat> wala ndaw si borom daraja la daa bokk ci askan wu rëy ba tax na waruñoo dagg loxoom bim waxee loolu rasulullahi sallallahu alayhi wa dafa mer ba ne ko Fatima mii sama doom bu sàccoon ma dagg loxoom ndax dang may tinu ci àtte bu yàlla tëral ba noppi maa ngi lay yëgal ne Fatima mii sama doom bu sàccoon ma dagg loxoom ok yenent bi noonu lañ ñu jàngalee yoon ba nga xam ne nii nga sant Haydara nga sant Mbàkke nga sant Si nga sant Taal nga sant Ñas nga sant Saar nga sant Jàllo nga sant Joxaane nga sant Jaxumpa nga sant Faal nga sant nga sant nga sant lu mu mënti doon ak sant woo mënti sant bu ñu demee ci kanamu yoon ñépp ci war a yem ku def dañ laa war a def ku deful ñu bàyyi la nga ñibbi ba tax na loolu dong lañ ciy waxagum li ci des nag ñu ngi koy topp su fekkee lu amul la tooñ nañu ko tooñ nañu njabootam tooñ nañu ay soppeem bu fekkee lu am la tooñ na boppam tooñ na njabootam tooñ na fa mu bokk waaw te boobaa lu mu laaj rek yoon war ko def dañuy wax ne yoon na ko def loolu moo ci nekk waaye daal ba léegi maa ngi amagum réserve te li indi reserve bi mooy li ma wax ne moom la ay mbokkam wax te lu ci bari li ñu déggagum presse moo nu ko waxagum presse te presse bi ko waxagum gën cee siiw muy libération maa ngi déglu rek léegi imam Alioune Badara Ndao benn audio muy wax moom sos yu ko libération daan sosal waaw sos yu ko journal libération daan sosal moom muy toog dégg muy wax ci moom loo xam ne ni dara du ca dëgg ba tax na moom alerte boobu la def pour bu fekkee libération dong nga ca waxagum moom nañ ca tey waaye journal la waxagum ñuy jàngat comme lu journal génnee waaye avec ñu jot yeneeni xibaar yu bàyyeekoo ci mbokkam ci liñ wax li wolof di wax ne la ca kanam rawuli bët waaye man sama position mooy yoon ñëpp ca wara a yem ñëpp ca war a yem amul kii amul kële ku deful it kenn waru laa def dara kenn warula tuumaal nit sosal ko yàqab deram jaay ko doole euh, teg ko yoon waaye tamit kenn waru la am doole ju tol ni def nakasul noon noonu te yoon du dal ci sa kaw loolu la wax ci lool noonu le li ci des ñu bàyyi ba li ci topp incha allah ñu xam fan la wànnent di mu ki gëtam ñaareel bi mooy euh, wane ci loolu mën naa ne sax du génn point boobu noonu le mooy léeg-léeg ñu bari gis naa bi mbir yi amee ñuy wax ànd sàmm jikko yi ànd sàmm jikko yi xam nga léeg-léeg dafa am ñoo xam ne nii dañuy ñëw ba janoo camp bu doon ci match laa koy misaalee bu ñuy football dangay ñëw ba jàkkaarloo camp bi nii nga romb góol bi war a dugal bal bi nga talone ko ne ko yaa ngi jàkkaarloo kan yi talone bal bi mu dellu ci ginnaaw ñenn ñi léeg-léeg loolu la ñuy def xam ngeen ne moos yéen ànd sàmm jikko yi wax ne nañu criminaliser ngóor jigéen état bi bañ ne criminaliser wul bu ñu ne criminaliser ma leeral foofu noonu le ndax it ba léegi am na ñennat ñu ngi wax ne waaw yéen ànd sàmm jikko yi criminaliser ngeen wax fii Babacar Mbuub nee na du criminaliser nangam ak nangam leeral bii ma ci wax jàpp leen ko ànd sàmm jikko yi dafa def daje nañ criminaliser ngóor jigéen pétition yiñ bind criminaliser lañ ci bind ñu jógee ci fasu rassemblement ak criminaliser ngoor jigéen di tëgg loi bi dem ñi seen xam-xam màcc ci wàllu loi ñu ne ñu criminaliser lii la waaye ci biir criminaliser ñu won ñu ci mbir mu doy waar mooy ndekete bu ñu criminaliser benn mbir nit ki mën nañ ko tuumaal ci ngóor jigéen rek comme lu mel ne lii nga xam ne moom la ñuy wax nii ci sañaasan ñu jël la yóbbu la instruction mën na neex juge mu téye la fa cinq ans wala lu jëm kaw ba heure bu ko soobee pour mu àttal na day wër te su boobaa ci ay tuuma rek lay yem léegi ñu ne loolu noonu la est-ce que ñu maintenir ko noonu ngeen defar loi bi loi bi ñu def ko criminaliser comme viol niñ ko defee nga xam ni léeg-léeg ciy tuuma la ñuy jëlee nit tëj leen ci kaso dix ans soog leen àtte am déet ñu ne ah loolu moom xelluwul te xel nangu ko ñu ne waaw léegi kon lan moo mën a am ba nga xam ni ku def lu bon lii di ngóor jigéen ñu am ci firnde daan yu métti day tegu ci sa kaw ci lañ ñu seetal li gën a sever lu weesu lu génn criminalisé ñu tegal nu ko ci wàllu loi mooy gën jaaneew dix ans lu ëpp dix ans jëm kaw mooy dugg ci criminalisé ba vingt ci lañ jëlaat loolu delluwaat ci kilifa yi nga xam ne nii ñoom ñoo si woon criminalisé ñu leeralal leen ko ñu ne aha kay lii moo baax ndax nit kenn waru koo tuumaal rek jël ko tëj ko ci kaso fàtte ko fa nit kay da ko war tuumaal bu fekkee am nga ciy firnde yoon dal ci kawam bu amul firnde nga bàyyi ko mu ñibbi këram waaye tuumaal ni rek yóbbu ko instriction jël ko tëj ko fa fàtte ko fa te tuuma kese la amagoo ci la leer mën nga ko tëj dix ans génn ne ah dañ ko doon tuumaa rek ci ngóor jigéen waaye lañ ko doon wax defu ko su boobaa àq jooju noonu le kan moo ko gàddu mais ña tëgg luwaa ba seen euh, seen seen ña nga ca bokk nañ ca loolu moo indi ñu indi modification article 319 alinéa 3 loolu moo dugg assemblée nationale léegi nag la toppoon communication yi ci criminaliser ba léegi terme boobu la ñuy wéyal mooy yokku daan ya gën a métti waaye boo demee ca criminaliser ca luwaaye nañ ko bindee loolu dañ ko jël teg ko à côté indi la topp ca criminalisation homosexualité moo tax ba léegi rek terme criminalisation bi la ñuy utiliser mooy daan ya gën a métti ci wàllu ngóor jigéen loolu baax na ñu leeral ko pour ñenn ñi loolu leer ci seen bopp ñu xam ko bu baax a baax léegi nag bu ànd sàmm ji koy sàkkoo loi bu métti boobu noonu léegi ñu leeral la leeru toon ndax euh, bi fi nekkoon te act contre moom daanam ba gën a métti cinq ans la yem cinq ans te ànd sàmm jikko yi moom dafa yóbbu ba dix ans ba dix ans bi fi nekkoon tuddul homosexualité tuddul LGBT ànd sàmm jikko bi mu yóbbu dafa tudd homosexualité tuddul tuddaale LGBT bi fi nekkoon sóoraalewul ay financement yuy bàyyeekoo ca biti aw nit di ko jàppalee góor jigéen fii ci biir réew mi loi bi ànd sàmm jikko yóbbu dafa sóoraale ay financement ba ku ko jot da ngay dugg ci apologie apologie homosexualité dañ ko duggalaale ca loi ba kooku yoon day dal ci sa kaw loi bi gouvernement bi téye waaw léegi ñun ñu ne dañu bëgg ngóor jigéen jóge fii nañ teg luwaay yu sévère gars yi bloqué ko léegi heure bu amee lu jege ci wàllu ngóor jigéen ñëpp jug naan wala ñeen nat sax du mën a ñëpp ñeen nat ñuy ruube ñeen nat ñuy ruube jug naan ana waa ànd sàmm jikko yi lu ngeen wax ci lii li ñu wax ci lii mooy nañ ko criminaliser loi bii ñu yóbbu assemblée nañ ko voté loolu lañ wax waa su fekkoon ne ñun dañu taxaw gouvernement bi ne dañoo bëgg daal ñu teg daan yu métti ñuy def mbirum ngóor jigéen ànd sàmm jikko yi jug ne non loolu moom ko nangu duñ ko seetaan waruñ ko def ba gouvernement bi teg loi boobu noonu le waaw kay boobaa lu xewati ci la ñuy jóg ne ne ana ngeen waaw ñi ngi doon bëgg a wax ne nañ teg daan góor jigéen yi ngeen jug naan bu leen kenn teg daan foofu lañ doon waxee ànd sàmm jikko dara nag waaye defe naa état bi bloqué lii assemblée nationale bi bloqué lii juróom-ñeenti député yi bloqué lii lu xewati ci lu jëm ci wàllu ngóor jigéen ñooñu lañ war a waxal mais pas ñuy tudd ànd sàmm jikko yi ña koy tudd nag mooy ñële bañoon loi bi rek kon bu boobaa loolu rek lañ ci déggee loolu dong lañ ciy déggee bu boobaa ba tax na kon loolu lañ doon leeral ci wàll googu noonu le wane ne lu bon moom lu bon la ak ku ko mënti def ak foo mënti bokk lu bon la ala kulli xaalin te dañ koy dénoncer ba fa dénoncer yam beneen bi mooy euh, mbirum benn mbokk mu ñuy wax sëñ Xasan Mesre euh, dañu toog rek gis benn vidéo mu tasaaroo lool mu cay wax wax yu grave ci daara yi ak sëñ daara yi dafa am sëriñ daara bu ko woo ne ko moom dafa bëgg mu boole kook fajkat yooyu di faj ndax moom dafa yor daara te daal bu ko ci mbiri xiiree ci xale ya nga xam ne nii moom la yor lay dem ànd ak ñoom su paree nag day rëccu yor kurusam di tuub léegi mu bëgg daal loolu mu am kum ko booleel ñuy faj pour daal loolu lu ko ko teggil yamu ca mais mu ñëw di justifier loolu nag wane ne daal mbir moom mbirum rab la li koy def loolu ñu bari ñu ngi tuddum góor jigéen mais fekk mbirum jinne la woyo falaan mbir yi daanaka daal dellowaat yëpp jiiñ ko jiñ jinne yi daal ñi mu toogal ci palaato bi soo ay bu gis naa mu ñëwaat ne ko mais mbirum góor jigéen mu ne mbirum jinne bi ma gisee vidéo bi lu ci nekk bu fekkee ku ma xam la ba ci sax ku ma xamul danaa def samay gëstu ba fa ma yem gannaaw moom xam naa ko dañe nañu bu yàggu rek ci koor gi invité naa Souaïbou tamit ci biir koor gi ci DTV bi ma génnee ci télé bi fekk naa ko ci bunt bi ñu nuyoo ci laa ne xaaral ma woo bu laaj ko ni moroom laaj ko sëñ daara bii muy wax kana en tant que man mi nga xam ne maay coordinateur aar daara génn naa sax ànd sàmm jikko koy mais aar daara sama wareef la ma jug gëstu ci lu mel noonu xam lu xew su fekkee ne li muy wax am na aar daara dafay jóg porte plainte sëriñ daara boobu noonu la yóbbu ko ci yoon sàkk ñu def ci moom li yoo war waaye daara ji tamit ñu tëj ko dootul jàngaleeti ba mu dammu xalimaam ya lakk ay aliwaam looloo nekkoon li ma yéene bi ma ko wooyee wax ak moom surprise bi ma ci am mooy nee na daal dafa juum ndax njuumte mooy moom ke ko woowoon jotul a enregistré numéro te sax xamul ndax sëñ daara la am déet ba daal dafa juum te ñëpp wax nañ ko ko ba dana jéggalu ba dana jéggalu xëy na fii may waxeek yéen nii mën naa am fekk jéggalu na ba noppi ndax waxtu wi ma duggoon ne dana ce jéggalu dana war a fekk émission bi di jàll ci laa ko xamal nag te loolu laay wax ne ko loolu nag erreur bu rëy rëy la ndax daara dafa sensible man mi nga xam ne nii pro daara la yor daara di jàngale alquran samay njaboot nekk ci daara bëgguma dara loo xam ne luñ koy wax lu jëm ci daara la man mi dégg lu tiit rawatina ñeneen ñi nga xam ne nii yàkkamti nañoo dégg lu mel noonu ci daara ba ne mu ngoog xamoon nañ koog bettuñu ma ne ko nag erreur la te njuumte la lu rëy rëy mu nangu ko ne njuumte la wax dëgg mi ngi koy tuub tey dana ko wax senegal yëpp ne leen njuumte la waaw bu fekkee ne man am na nit ku ma wax benn mbir lu grave noonu su ma demee ba yoratuma numéro mais lu ma ci wax ci rajo ak ci télé ki la wax tamit yow xamu sëñ daar lam déet yow nga wax loolu ba noppi di confirmer mais loolu noonu la c'est très grave ah bu dee jéggalu na alhamdulilah ñu jéggal ko waaye nag lu mel noonu lu mat a éviter la lu mat a éviter la te mu leer te te ñëpp nañ ko xam ne ku mel ni Makhtar saar lu mel noonu amul benn sëñ daara bu muy dégg na yaa ngi koy def lu dul jug nañu sàkk yoon dal ci sa kaw te lu ne ñu ko jaral ndax dañuy wax dañuy aar daara aar daara nekku rek benn euh, gouvernement bu jóg ne day dal ci kaw daara ñu jug di wax déedéet aar daara yu bon yooyu buñ ko déggee ñu ne ma ngay xew ci daara te muy dëgg waa kay loolu ci aar daara la bokk ngir ñu seppi ko ca na dégg foo dem am na ñu fay def lu bon waaye nag am na lu bon loo xam ne mën naa xewee feneen waaye duñ nangu nag mu xewee fi nga xam ne nii ku yàqoo feneen fii lañ koy indi ngir mu defaroo fi loolu laa doon wax ci lu mel noonu moom it muy beneen mbir euh, di yamale foofu noonu lay ñamale gi te dugg nag suñu waxtaan incha allahu taala su ko defee kon ñu dugg ci li nga xam ne moom la ñuy waxtaane mooy euh, promouvoir gi nga xam ne gis nañu autorités yi nga xam ne ñoo nekk ca kaw muy promotion bi ñuy defal contre valeur te nekk ay personnalité yi nekk ci bopp réew mi ma delluwaat di waxaat di ñaawluwaat di jooytuwaat en tant que président de la république ñu gis ko ak nit ñu xeebu ñii Mm-hmm. ñu gis ko ak nit ñu xeebu ñi président Macky dafa am lu ko sénégalais yu bari nawe te léegi mu doon nag woon te ñaanuñ mu doon woon mooy doo ko dégg mu saaga doo ko dégg mu wax wax ju bon 2012 ñu bari bokk na ci li tax ñu voteel ko mooy yaram doo ko dégg mu wax wax ju bon doo ko dégg mu saag te dëgg la dëgg la doo ko dégg mu saaga doo ko dégg mu wax yenn wax yu bon jëm ci nit waaw léegi loolu bu fekkee yow nit ñaa ngi la koy taggee ku lay sikkalit feneen la lay sikkalee ci leneen ci gestion nangam waaye daal gis nañ ne yow duggoo ci biir politique gu yi nga xam ne nii xasteeg saagaak wax lu bon lañuy def nga ñëw yow ba dernière minute ba sa année yu mujj ci nguur yow mënoo saaga saaga woo gisuñ la ngay saaga waaye ku dàq saaga ndey gën a ñaaw làmmiñ gën a mën a sos gën a mën a wax lu dul dëgg nga ne ko maa ngi rafetlu sa liggéey loolu nag yaa ngi jugee ko ci kaw di wàcce ci suuf ku la bëgg ku la bëgg ku la bëgg dana la wax ne la soppil sa toogaay ba ko defee ci ndaw sa mais ku mel ne man dafa bàyyi mu jàll ne non jaru ko nañ bàyyi mu jàll mais am na koo xam ne sax même boo koy recevoir jarul caméra jarul photo jarul dara nay génn rek naan gise naa ak président doy na ñu naan war naa giseeg moom warta giseek moom na fa doy na waaye ëpp naa fotowul ëpp naa def ak moom vidéo rawatina nag mu lay waxloo mu lay waxloo mel ne ku yor benn xale mu ndaw daal ñëw rek jël sa téléphone woy maa ngi ni nekk ak président président liggéey bi ci réseau sociaux yi maa ngi koy rafetlu di leen jaajëfal boobu jàll la jiitu loolu ñu wax la ngir waxaat rek ngir wane promotion contre bi mais ñu bari xam nañ ko waa jooju nga xam ne nii sàcc la sàcc te li doy waar mooy sàcc bi ki ko sàcc loo nee na man maa ko sàcc loo mën naa ko tudd far ba Ngom jarul may tudd ka sàcc mbir ma nee na moom moo sàcc loo waa ji yamu ca waaye moom moo sakku ci président ne ko recevoiral ma waa ji maanaam sàccab liste ay opposant daw ak moom ñu lay wër gisuñu la ba liste boobu yàqu ñooña bokkunu kële ne maa la ko def loo ndax loolu liggéeyu politique la waaye ngir rafet lu jëfam jooju noonu le bokk na ci liñ ko mën a fayee mooy ñu fexe ba mu gisee ak président recevoir sàcc boobu noonu le ca palais ba promotion contre valeur promotion contre valeur man daal mii bëgg gis président mu jafe ma bokk na ci li tax mu yomb ma naa fexe def lu bon lu neex président ndax ma gisee moom ñaata ay militant wu président ñooy jooytu ba président faloog léegi 2012 mënuñoo am audience ak moom mënuñoo toog ak moom te ñooñu de nekk ñuy sàcc ñuy sàcc lis nekk ñuy saagakatu ndey waaye daal nee nañ ñi ngi défendre président ñi ngi nekk ci parti bi di ko liggéeyal bëgg nañ koo gis mu taleen léegi ñooñu bëgg a gis président mu taleen am ñu mu yomb ñan la nekkal ku ràññee ku mën a saaga ndey gën kaa fësal nag ci mën a saaga wujju président yi akay ah président kontaan na ci ku koy saagal wujjam ba tax bismillah ay waay ana jikko yu rafetu réew mi ana mbaaxu réew mi sunu borom tabaraka wa taala lan la nu digal taawanu ala albirri wa taqwa wala taawanu ala al ithmi wal udwan dimbalante leen ci mbaax ak ragal yàlla waaye bu leen dimbalante ci bàkkaar ak nooneel dimbalante ci bàkkaar bokk na ci mooy kuy def lu bon nga ne ko waaw góor am na ñu ne waaw noom mais yéen tamit li ngeen di ñaawlu président bu fekkee waa ji dafa ko tooñ ñëw ne ko waaw man maa ngi lay baalu président baal ko loolu lan moo ci nekk nit ku nekk mën naa juum mais ñiy wax loolu ñoom xanaa nekk ñoon ci kaw suuf wala seen nopp yi déggee wuñ ko wala tànk lañ doon déggee waa ji jugul dem ci président ni da koy jéggalu ndaw sa tamit demul ci président ni da koy jéggalu de hmm. ndaw sa bi muy dem ci président président di rafetlu liggéeyam dafa demoon di ko jéggalu ci ba président ne ko jéggal naa la ah ndaw sa dafa dem président ne ko maa ngi rafetlu liggéey bi waa ji moom it dafa dem président ne ko maa ngi rafetlu liggéey bi ngeen ne waa ji dafa ne moom di jéggalu ji président déedéet amul fenn fu mu nekkee président ne ko maa ngi lay jéggalu ca la ma la daan wax walla mu affiché wu fa wane ne kat man bis tey bàyyi naa saaga ndey ak lu bon la ma daan wax déedéet soxna njiitu réew mi la toogal mu ne ko yow lu tax nga doon saaga président mu ne ko waa loolu moom ba mu koy def xam nga opposition opposition bi tey ñoom ñoom ñii tey ñoo ko doon partagé mu ne ko ñan mu ne ko opposition bi bi may saaga noonu ñoom ñoo ko doon partagé maanaam daal moom waa ji ay jamono dafa àndutoon ak président ba tey promotion contre valeur bi am ñenn ñu ànd ak opposition bi ne waajee fi man bu may wax ñaari yëpp lay waxee képp koo xam ne waa ji bi muy saaga président yaa ngi doon partager ay saagaam di ko rafetlu bu ëlbatikoo di saaga sa leader nga koy ñaawlu oneto dëgguwoo oneto dëgguwoo booy bañ lu bon danga koy bañ amul ci kii ak ci kee ci fii laa far ak fële laa far faru polotik défendre sa leader ki nga àndal waroo àndeek moom ci kuy wax lu bon aka saaga aka sos ngay jël kooku di partager ay waxam ak di ko jaajëfal te waa ji loolu mu wax noonu effectivement am na ñoo xam ne ba muy saaga président ñi ngi ko doon rafetlu foofu foofu de la waa ji waxee ne ba may saaga ñi ngi ko doon partager mu ne ko ñan soxna njiitu réew mi ne ko ñan mu ne ko opposition bi waaye nag xam nga rek loolu man euh, jéggalu naa ko def naa live danaa def live Euh, te léegi màgg naa kañ la màgg quatre ans ci ginnaaw bi bi muy saaga ndey ak léegi ñeenti weer ci lay toll mu ne diggante bi màgg na daal mars avril avril mai juin quatre ans léegi diggante bi mu ne màgg na daal foofu de lañ déggee lu jege jéggalu waaye lu ko mooy wax nak ambassadeur ba walla consulat ba yenn autorité ya fa nekkoon ku ci nekk wax naa ak yow ba ñëw ci président wax ak moom ba ne reer na ak moom ba diggée ne dana def ak moom interview lépp dégguñ ci fu ne maa ngi jéggalu président wala wala kon loolu ñi koy wax ñan la ñuy waxal dafa koo xam ne far na bëgg na président bëgg ku tol nii da koy déranger loolu njuumteel président loolu noonu léegi nag moom il faut mu jugaat défendre ko salaatul fatihi dafa am baat bu ci ne bu am solo bu ñuy wax di ko bakke rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy naasiril xaq bil xaq naasiril xaq bil xaq bu fekkee ki ngay défendre ci dëgg la ne dëgg nga koy défendre yenent bi mooy dimbale dëgg mais dëgg lay dimbalee dëgg soo amee dëgg dëgg nga koy dimbale waaye daal gannaaw far naag diw kenn bum ne ko sa bët bi suufa ngi ci moo xam kafar ak président wala ka far ak opposition ba ñoom ñëpp daal kenn bum ne ci kenn sa bët bi suufa ngi ci looloo fa xew waaw léegi bu fekkoon dafa ñëw sax jéggalu président na ko wax ne jéggal naa la ba ko ma dem mais warul nekk ne mi ngi wax ak ma ku ko ñaawluwu rek léegi <laughs> yow sa xel dana la yedd xoolal léegi ñu ne président wax na fa wax ju am solo jañ wax ne moom la fa wax te wax ja mel ne waxu ko ku mel ne man wax naa ko léegi ci ndorte li partagé wu ma waxu saagakatu ndey seen tur sax dama ci rusa jaar te la ñuy wax mën naa ne saaga ndey sax moo ci la gën a woyof la ñuy génne ci làmmi seen làmmi ci lu bon di ko wax jëmee ko ci nit mais nit ñoo ñunoon le dañ leen war a yar yeddi leen delloo si leen ñu tuub bàyyi lu bon loolu ñuy wax ak jëf mais pas ñu leen defal ay promotion ak di leen promouvoir ndax li muy jur mooy bu ca jógee léegi am na benn crédibilité bu toll ni toog na ak président de la république man maa ko maa waxoon ak moom bi nga xamee ne presse àdduna bi yépp ñi ngi wër président man saaga saagakatu ndey bii ñuy wax ne damay saaga man maa amoon lu jafe journaliste Sénégal yëpp hmm. wala taawanu ala al ithmi wal udwan sunu borom nee na bu leen dimbalante ci bàkkaar ak luy jur nooneel bu leen ci dimbalante waaye bu ngeen dee dimbalante dimbalante leen ci mbaax ak ragal yàlla waaye am na koo xam ne boo ko mayee lenn li rek yaa ngi koy dooleel te dooleel la nag dooleel la daa mel la dafa dem ba mu yàgg daal président ñu ne ko ah li li li li li ruslu mooy président moo toog ba mu yàgg di ñaawlu liy xew ci réseaux sociaux yi mais man ci ñaawlu ko laa dëkk ñu bari ci ñaawlu ko lanu dëkk ku mu neex nga toog ci réseaux sociaux live ndax man dama ci nekk victime nekkati ko ci nekkati ko ci da ngay toog nit di wax ci Makhtar Sarr nga naan man Makhtar saar lay waxal kon su ma toogee dégg président ne toog ci internet wax ci nit lu la neex dama naan waaw man dund naa ko dundati ko ba ci ndaw soosu mu dalal noonu moom président ca pale ba mais toog na fii ne boo gisee ma doon wax ci Wally Seck xaw ma moo moo géet xaw ma kan xaw ma nan géet moo ma fay cinq cent mille moo tax ma doon wax ci Wally Seck cinq cent mille te xaw ma kuy mooy géet lu seen ko mosuma déggante <laughs> man sama fere weer ci sama daaraak employé rek ak yi ci kaw millions yi jëm kaw la may ñàkk fayda bañ may fay cinq cent mille daara jële may tabax ci Tiwaawoon Pël projet bi trois cent millions yu manqué tuuti la may ñàkk fayda ñu may fay téeméeri junne Maxtaar Saara ñàkk bopp noonu laa ko waxee woon ci jamono te ndaw si président dalal di rafet lu liggéeyam moo naroon nar yooyu toq sama nopp hmm? waaw léegi kooku ak kii ak keneen ci yooyu nga xam ne ni ñi ngi koy wax ak di ko doxal muy lu bon président bi mu jugee ne kat lii dafa war a dakk dama ne waaw góor dafa war a dakk mu des nag wax ji dafa am lu mu ciblé lu mu bëgg a wax wala xamaguma daal moom ni wax ne noonu lay dakkalee mbir mii di xew ci internet bi ma xëy gis mu dalal saagakat boobu ak soskat boobu noonu le mu ne président xanaa yëgul ne kii bu loi bi ñëwee wala lii réglementé ci ñiñ war a njëkk a réglementé mbiram la bokk moom boobu jàll ma ti gis keneen ku mel nii yaakaar yàkket yaakaar yàkket jaratul président di toog fenn naan réseaux sociaux yeeg la fay xew ak réglementé wax ci nit lu la neex ak jaratul président di ko wax jaratu ko ndax du safeeti nag wax dëgg te nag wax dëgg fa yàlla soxla nañu nag ñu réglementé réseaux sociaux yi ci façon boobu bu dee loolu lañ jublu ci réglementé gi paa bu kenn waxati wala bu kenn waneeti yu ñu war a dénoncé wala déedéet mais ku ne war nga mën a wax li la métti te bañ a sos bañ a saaga loolu dama cee d'accord dama cee d'accord ku mënti saaga ku mënti doon des koo war a dénoncer te bañ a nekk di woyofal bii naan non waaw xam nga gis nañ opposition bi euh, saagakat bële ñëw na ñu jox ko parole lu bona bii tamit nangul na yow lu bona muy lu bon ak lu bon ñu seet nag bon gii nekk bona tati mooy bi nga xam ne nii moo gën a tee bon ndax bii li nga xam ne moo ci nekk ci bonaay gi mooy kële dem ci dajeb opposition ñu jox ko fa kàddu gisuñ ko moom mu toog ak opposition di ko waxloo ci réseau yi saaga gisuñ opposition bu ne ko ngi rafetlu sa saaga yi ngay saaga donte lu ñaaw la dem ci daje taxaw naan waaw ndax ma nangamam déet ci terme yoo xam ne moom nga doon utiliser booy saaga aw nit ba tey rek moo dugaat ci thème bi thème bi mbooleem kuy wala ñuy defal promotion contre valeur ñi ngi ci biir rawatina nag politiciens yeeg seen géew yi léegi ndaw ñi nga xam ne tey ñoo juddu yem ci politique gu année yu mujj yi xëy na am na lu jiitu woon mais fi ñu wàccee débat yi dafa xeebu dafa suufe amatul worma amatul kersa amatul sutura politique daal léegi mooy waxal ne diw sàngam njaalookat la kële taxaw fële wax leen ne diw sàngam sàcc la kële taxaw fële wax leen ne diw sàngam dañ ko war a rey kële taxaw fële wax leen ne diw sàngam yi dañ leen war a tiire ñoom ñëpp kële taxaw fële diw sàngam mii askanam mi mu bokk ak nangam ak nangam politique ci xeet politique ci waaso politique ci ay jëfu nit yoo xam ne bu mu ko doon jëf sax même bu doon dégg sax warul nekk débat politique bi ndax debaa idée la war a doon mais pas débat xawente sutura génération bii mujj bu ñu yemee ci lu mel noonu fu nu jëm waaw loolu nag ku ne waroon na cee mën a dugg nag ba mu des koo xam ne yow lañ jox donkaas yi na nga toog ca kaw am na koo xam ne nii kuy wujjeek yow moom moo war a moom la gémmiñam dañ ne ko am wujju jong ma sa gémmiñ du selaw sa gémmiñ du selaw mais président moo waroon doon wujju jongama ji opposant yi oppo opposant yi nekk ñoo xam ne nii seen gémmiñ du selaw ndax ñoom lim bëgg moom liñ bëgg ñoom moom moo ko yor ba toog ñoom nguur lañ bëgg moom jot na ci ba toog ñoom kay ñoo war a dëkkee wax ña bokk ca ñooma war a wax wax ju safaanu xëy na yow ña bokk ci yow euh, taxaw ñoom di wax lu rafet waaye daal léegi défendre président mooy mën a la saaga defendre opposant wala attaquer président mooy mën a la saaga wala wax ju bon loolu ñii sàmm ay valeur mbaax gi fi mag ñi bàyyi yar ñu ci dañoo war a taxaw nag ne leen adada waaw doy na sëkk réew mi réewum diine la réewum aada yu rafet la bu dul diine sax ay maam ñoo fi nekkoon ñoo xam ne nii dañoo daj lu nekk nag ngir réew mi yegg si fii mu yegg si tey ba buñ ne senegal ñu ne réewum teraanga réewum mbaax mbaax googu noonu le dañu war a taxaw di ko sàmm su fekkee président yi dalal saagakatu ndey kan mooy toog a toogateeg doomam ne ko saaga ndey baaxul sa jan doomay saagaati nga ne ko saaga baaxul tey imagine rek kenn ku toog dagg saaga di xale bàyyam ne ko non pap ne ko saaga baaxul mu ne ko non papa président dalal na ko doon saaga mais lu te fële ca Saalum tuug ngay dégg tuug soo déggee xale bu saaga mag day taxaw fële ayu ko ayu ko di ko tuug ba ma déggati ko léegi kan mooy waxati tuug boo waxee saaga kat sax ne ko saaga baaxul yow boo paree mu saaga la dangay ngay wax saaga kat ne ko saaga baaxul booy daaneel mu saaga la maanaam kat bi ku naan ko saaga baaxul booy daaneel mu saaga la waaye yàgg-yàgg noppi <laughs> li wolof di wax naan jàppkatu jaan jaana koy mujje nappukatu jaan jaana koy mujje kuy def garab goo romb rocci di nga mas a rocci garab gu am dég am na ñoo xam ne seen yàpp yi dañ koo posone am na ñoo xam ne dañoo posone seen yàpp yi looy wax ba màtt ko sa bëñ yëpp dana rot mhm. ñoo am na leen di saaga bàyyi saaga ba faw wala ngay wéy di saaga ba faw te ñu ngi ci biir nit ñi nëbbatu de ku la ñuy saaga hmm. am na yoo xam ne valable na pour nga saaga ko ndax deretam ak deram dafa lewet am na xam ne seen der dafa weqat dañ ko posone ma wax leen ko te ñu ngi ci biir nit ñi looy wax ba matt seen der rek c'est fini jeex na wante mm-hmm. jàppkatu jaan jaana koy mujje dama ko mos a wax kenn ci jamono yi mbirum waali yooyu ma seetaan kenn ku jigéen mu def live nee naay man lay daggali saaga <laughs> ndeysaan yal na yàlla dolli sutura di wolof di wax naan ku xamul xamul léeg-léeg ku xamul xamul waaw léeg-léeg nga jóg yow ne yaa ngi xeex ak nit wala yaa ngi xeexal nit ka ngay xeexal moom façon ba ngay xeexee moom ñemewoo koo xeexee ak kamu joteel yow nga jug moom ne yow yaay jëngukat bi jéngukat bi ne yaa koy jénguleey hmm. aja rek de leen jéngu rek de leen jéngu nekk leen ci réseaux sociaux yi ku leen neex ngeen def vidéo attaqué ko sax leen ci rek sax leen ci lépp dina baax di ngeen gudd fan di ngeen wér di ngeen yokk di ngeen mucc te du ngeen am benn jafe-jafe sax leen ci saagakat yi laa wax acca du ngeen bàyyi saaga du ngeen bàyyi ku leen neex sosal ku leen neex da ngeen def vidéo ci moom wax ko lu leen neex sax leen ci te yéenewuma kenn nag mu sax ci dama yéene ñëpp nañ tuub dellu ginnaaw na débat yi doon débat idée defal sa live bu amee lu la metti ci réew mi wax ko sa dënn mën na jug mën nga ko wax wax ju tàng wax ju diis waaye nag na am limite dafa war a am ay faruus yu tàkk ñu taxaw nag am fu ñu war a yem bañ di dugg ci yenn yi dugg ci vie privée nit rawatina lu ci bari di ay sos sos sos sos mais ñu mel noonu dañoo war a fexe bañ bàyyi lu bon la ñuy def mais pas nit di leen encourager que di leen féliciter que di leen taf ci seen bopp ku ci pare nag ngir tuub ngir dellu si ngir bàyyi alhamdulillah ñu jël ko taf ko ci suñ bopp mu dellu si bokk ci sunu biir waaye alxabisaatu lil xabisiin walxabisuuna lil xabisaat wa tayibaatu li tayibiina wa tayibuuna li tayibaat la yàlla wax sunu borom nee na ñu salte ñi daal nañu nekk ak ñu salte ñi rek waaw mu jeex ñu set ñi nekk ñu set ñi mu jeex waaye ku toll ne président de la république ak lu coow li mën a bari ci xët-xët loo politique lu critique gi mën a bari ci ay defin yu def wul am na loo xam ne dañ ko war a sàmm ndax daa jiite réew moo xam ne réewum valeur la kooku dafa war a sàmmal waa réewam valeur yooyu nga xam ni nii moom la ñu am waaye warul bokk mukk ci promotion contre valeur waru cee bokk waru cee bokk dañoo jël bii rek mais ëllëg mën nga jël yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ni ay promotion contre valeur la waaye bii nag dafa ñëw nag ci jamono joo xam ne ni tey soo jëlee député bale di Abdou Mbacke Baara Dolli lam wax te kuy nit ku am jomb-jomb la mu wax nekk lu bon looy ñaawlu looy ñaawlu rafetul jaaduwut yellut mu koy wax mais dégluwuma kenn ku ne maa ngi koy rafetlu dégg naa kenn ku koy wax mais xëy na waxu kuy par loo lay wax ak wax joo xam ne taxawul fenn ci biir lu ma téeméer yu ma déglu kenn ko rafetlu kon kon wax ju suufee la joo xam ne nii benn benn ñoo koy waxee ni di ko rafetlu ah. ñu bari ci sénégalais yi te man ma jàpp ne maa ca jiitu bokk ci ñi ñaawlu kàddu googu bon lu ko lool ñu yëkkati kàddu googu di ko jëmale ci njiitu réew ba yoon jug dal ca kaw kooka xëy na dañ naan procédure ba jaaduwul ak député la ak immunité parlementaire ak loolu leneen la waaye daal moom ku mel noonu wala wax ju mel noonu kenn waru ko wax jëme ko ci njiitu réew war nañoo fexe ba ku ko wax yoon dal ci sa kaw boobu ëllëgee keneen du ko wax ndax lan moo tax lu mel noonu mooy tolluwaayu njiitu réew même période bi même période bi yàggul matagul une semaine matagul une semaine ka wax kàddu gu ñaaw gu bon président ñu yóbbu ko bés keneen ca wet ga la mu waxoon moo gën a bon gën a ñaaw gën a yées jëm ci président kooku ñu gis ko président muy rafetlu liggéeyam loolu mooy njaxas gi jaxasoo ci biir mbir yi ba kële doon wax naan ñaawluwuma ko après da nga doon ñaawlu moom lim naan ñaawluwuma ko mais mën na ñëw ne waaw sama raison mooy lii a tax ñaawluwuma ko te su boobaa yow da nga mën a taxaw de sa position da koy ñaawlu waaye nag dana amaat lu woyof ca biir ñaawlu ko dafa yoo xam ne doo xam cat la doo xam noo koy tuddee ba tax na mbokk yi fi ñuy daanalee mooy dénkaat ñëpp ñu sàmm sunuy kàddu te xam ne sunu borom nee na maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid yow mi taal sa téléphone bëgg a sunu borom nee na ñaari malaakaang la tiim laataa kenn di la déglu ñu ngi lay déglu ñoo njëkk a li nga naan am naa cent yu connecté deux cent léegi ñu mat mille première ña connecté mooy raqib ak atid wa inna aleykum la xaafidin kiraman katibin yow dong bi nga toogee ci sa biir néeg ak sa téléphone ne kenn neew fi ah kay am na ñu fi ne yàlla ngi la boole ñaari malaaka yoo xam ne du ñu gëmmentu du ñu gëmm du ñu nelaw du ñu sonn du ñu tàyyi loo wax kiraaman kaatibin dañuy bind te yaalamuuna ma tafaaluun imaginel malaaka yi di la bindal ay saaga ndey ngay saaga nit ñu la koy bindal te yomal xiyaam saagakatu ndey lu ñu julli woor ko dañ koy jox nit yomal xiyaam ko saaga woon ndey moo tax ki gën ëpp sans Sénégal mooy ki ñu gën a saaga ndey ki ñuy gën a xas kooku yomal xiyaam moo nar a gën a baax affaire waaw maa la ko wax danga indi woor yu bari aj màkk yu bari asaka yu bari saraxa yu bari ñu jalal la ko mu nekk yu bari nga kontaan yenent bi nee na suñ borom ne malaaka yi euh, saaga woon na diw lekkoon na alalu diw tuuroon na deretu diw ñuy tibb di jox ñooña di tibb di jox ñooña ba nga jeexali yiw ñuy tibb seen bàkkaar di la ko xëpp yóbbu la safara lii dara war na la ko jaral loo julli jox ko nit soo jullee ba sëlmal woor toog ci whatsapp jox ko nit boo jullee ba sëlmal woor toog facebook live jox ko nit li mbokk ma fàllu seen di wax ne live yàq live fa ñu bari ñu bari seen live live ko yàq yàq nga live nit ci live ñu ba ci xel abi Moussa na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ayul muslimina afdal dañ ko ko laaj ne ko kan ci julli ñi moo gën mu ne man man salimal muslimuuna min lisaanihi wa yadihi mooy jullit bi nga xam ne jullit ñi mucc nañ ci làmmiñam ak loxoom koo koo gën ci jullit ñi watum na ami radiallahu anhu ne dañu laaj yenent bi ne ko mën na jaatu luy tax ñu mucc si jamono mu ne am sik aleyka lisaanak wal yasaaka baytak wabki sa làmmiñ yamal sa kër jooyal say ñaawteef mooy tax nga mucc si jamono téye sa làmmiñ yam sa kër say ñaawteefu bopp doy la nga koy jooy abu daawud ak ko solo yeneen si bi ne képp ku ma warlu lu nekk diggante ñaari sikkimam ak li nekk diggante ñaari tànkam ma warlu la àjjana mooy ku ma warlu ne sa làmmiñ wi doo ci wax lu bon doo njaaloo ma warlu la àjjana wax na ci beneen xadis na ñi ëpp sama xeet ñi dugg safara leen fa dugal mooy njaaloog wax njaaloo kàddu ñu bari ñu dugg safara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne loolu moo leen fa dugal njaaloo ak wax kàddu mhm. njaaloo ak kàddu asad ibnu asram ne dama wax yenent bi ne ko aw si nii ma mu ne ko tam liku yadak qultu fa maada amliku ida lam amlik yaday qaala tamlik lisaanak qultu fa maada amlik ida lam amlik lisaani qaala laa tabsut yadaka ila ila xayrin wala taqul bi lisaanika illa maarufan allahu akbar ay waay nañ dégg ndénkaane yenent bi ba saagakatu ndey bàyyi saagakat waxkatu lu bon yeeg soskat yi bàyyi ko yenent bi dafa am ku ñëw ne ko dénk ma yow yenent bi dénk ma mu ne ko téyel sa loxo moomal sa loxo mu ne ko suma ko moomul ku ko moom man maa moom sama loxo mu ne ko moomal sa làmmiñ mu ne ko sama làmmiñ kay maa ko moom su ma ko moomul kan moo ko moom mu ne ko boo gisee ma ne la moomal sa loxo bul tàllal sa loxo lu dul fu baax yow mi nekk di commentaire bul bind lu dul lu baax <laughs> dama am ko gis dama xam ne mu yor tur turu rafet nag ndeysaan ma xàmmee ay commentaire ma gis mu jël sama tur identifié ma fenn mooy li xewoon fële ca Genève te ndaw yi senegal yebaloon dem baña a voté voté non ba ko journal bi génnee quotidien ca jour ba ca DTV laa félicité gouvernement du Sénégal ak ndaw yanu yebaloon ca Genève wane ci sama mbégte lool ak sama kontante mooy ñu dem Genève 2018 ne sunu constitution amul loi buy tere homosexualité acte contre nature am loi bu koy tere te boobaa attentat à la pudeur xaw ma laan boo ko defee public ñu dëkk di ko ñaawlu vingt 2022 waa OMS woote ñu doon voté lu jëm ci wàllu santé ñu buruxlu ca dugalaale ci LGBT ak yu bare bare bare bare ci yooyu noonu la di leen défendre biñ demee ba toll ci vote réew yu bari ne way na jàll Sénégal ne non non <laughs> ma ne waaw góor senegal ci noo gi waaye tamit waaw góor ànd sàmm jikko yi ci seen combat bu réussir bi waaw ndax nag bu dul woon ak ànd sàmm jikko yi senegal mën na wéy di wax woy ca wees woon comme ni nga xamee ne mën na mën na ko waxaat tamit deux mille vingt deux ma félicité senegal wax ci li ma ci wax ba mu jàll mu teg ñaari fan ma gis mbokk mu bind loolu xaw benn fan sax ne waaw identifier sama tur fenn ne Oustaz Makhtar Sarr lii xew nii <laughs> doo ko dégg mu wax ji <laughs> doo ko dégg mukk mu wax ci waaw ndax xawma lan lan lan lan toftal ci ay kàddu ma ne kii gannaaw turam bi rafet na lool du ku ne may woo nag wala tappaas yu mel noonu ma ciy tontu mukk yàlla tere damay <laughs> bàyyi mu jàll ree noppi ma daal di ko jël bind ko ci suuf laaj ko ci ay question mu xaw a dëgër dëgër ñemee waxtaan ba ma laaj ko numéroom ñu wootante téléphone ci la ñu waxtaan mooy yónnee ko lien bi ma doon waxee ci loolu ndeysaan mu ñëwaat nag dellu si après di jéggalu wax dëgg xamutoon te nag démarche bi ma def démarche communicant ndax dama posé question laaj ko wax <laughs> ma ne ko amul problème yàlla bëri na sutura boo demee bay bind bay bind rawatina mu jëm ci nit ay waay bàyyil xel bindal yiw yenent bi ne ko sa loxo bul ci def lu dul lu baax waaye wala taqul bi lisaanika illa maarufa bul wax ci sa làmmiñ lu dul njekk looy wax na doon yiw na doon njekk Musaa nee na bul saaga ndey mukk bul saaga ndey bul sosal nit bul wax lu bon jëm ci nit wala taqul bi lisaanika illa xayra noonu nga koy toppee ba mu nekk ay xadis yu baree baree bare yenent bi dem na ba ne xadis bu raglu ay waay ay waay du lu la neex wax Mustafaa neen léeg nit wax benn kàddu genn kàddu kàddu gi bi mu koy wax sa bàyyiwu ci xel teg na ne du dara fekk jural na ko merum yàlla moo xam ne dana sax safara juróom-ñaar fukki at ci kàddu googu rek mu wax yàlla mere ko ca ba tax dana ko mbugal ci safara soixante-dix ans ci genn kàddu te nee na yow bi nga koy wax sa bàyyiwu ci xel waaye ñaawaayu kàddu gi nga wax tax na nga jëlee ci mbugalum juróom-ñaar fukki at mu ne leen léeg tamit nit wax genn kàddu rafetaay ba yiw ga bàyyiwu ci sax xel bi mu koy wax mu jural ko ngërmane yàlla mu saxal ko àjjana juróom-ñaar fukki at nañu bàyyi xel bu baax sunu bopp mbokk yi waaw nañu bàyyi xel sunu bopp su ko defee li ñu ci waajaloon yépp xajatu fi mhm. li ñu ci waajaloon yépp xajatu fi am na benn riwaaya dafa wax ne inna al abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fi nnaari abada ma bayna al mashriqi wal maghrib rawahu al buxaari wa muslim wa nasaa'i mu ne léeg nit wax lu ko wóorul maa yatabayyanu fiha la wax léeg-léeg nit wax lu wóorul genn kàddu gu wóorul yeneen bi neen wax ko mu jural ko mu sax ci safara diggante penkook saw diggante penku ak saw mu sax ko ci safara lu waay di wax na la wóor kàddu dafa foor hmm. lu waay di wax na la wóor kàddu dafa foor mm. yàlla doole ñu sutura yal yàlla delloosi si sunuy njiit bañu bañ tàbbi ci yu mel nii ak yeneen yu dul yii ci xeetu mbon wax lu bon bon na far waxkatu lu bon bon na jëf lu bon bon na far jëfkatu lu bon bon na yal yàlla delloo si xel yëpp maa ngi ci woo sama bopp di ci woowaat ñëpp ñu rafetalaat jëf yi nañu bàyyi xel ñett fanu bàmmeel dee ngi dikk te dana ñëw li yóbbuwaate du nu fi bàyyi de ay waay li ñuy wax ak jëf nañ ci bàyyi xel yàlla ak dee ñun ñëpp danañ dee ñu sang sang nu takk sunuy loxoog tànk dugal ñu ci biir suuf delloo suuf ci suñ kaw mun kii ak nakki danañu laaj a ajanaa ngi ñëw ak safara suñ jëf yi danañ ko peese ay waaye nañ bàyyi xel ci suñu kanam la moom Cheikh Al Hadj daan wax cay Maodo ñett fanu bàmmeel nañ bàyyi xel ci ñett fanu bàmmeel li la ngeen indiloon tey ci aaxiru zaman jërë ngeen jëf ci seetaan bi wasalaam. texeeg tànk bu gudd barke. ooleekalal du tee ñu xëy la tàgge xam-xam bu rëy ci yàlla mbaa ci duniyaa du la fegal bàmmeel yaak laaj teem yaam